dafa wax ne bu fekkee ba muy sangu farata daa am lu mu fàtte woon ca cangaay la waaye nag gannaaw ba jàpp na te ba muy jàpp far na raxasaale loola kon raxasaale gam raxasaale loola ci njàpp ma dal nay wecci mu raxasawaale woon ko ca ba muy sangu farata mel ne ba muy sangu farata mu fàtte woon na raxas ay tànkam la nga xam ne moom la ca njàpp ma moom gannaaw ba nag jàppaat na ba mu jàpp sax xelam di mutoon ci fàtte woon na tànk yi ca ba muy sangu farata waaye daal ba mu jàpp moom raxas na tànk ya kon raxas gam raxas tànk ya ci njàpp ma dal nay wecci raxas gam ko waroon raxas ca ca ngaay la faslu li ab dog la fii maa ca la nga xam ne tasiidu dana ëppe mbaa dana dolli ko bii ci moom al janaabatu janaaba xalal asxari mu ndaw dafa am toj mu ndaw am toj mu mag toj mu ndaw mooy moo xam ne jàpp rekk moo ca war toj mu mag nag mooy lay waral sangu farata dafa waxoon nag ya nga xamee ne soo amee toj mu ndaw maanaam ñàkk jàpp moom lañ lay aaye muy julli ak wër ak laal alquran yooyu dane woon su amutum jàpp doo ko sañ léegi nag soo amee toj bu mag te mooy amee ca ngaayal farata loo war a sangu te sënguwoo ko dañ lay aay yooye ba noppi am yeneen yuñ ca yokk aay la ko ba tey yooyeen ca yokk nag di la ko aaye yooyu la bëgg wax ci fii nga toll wala yoo gis daganut du xoolu masjidin tàbbi jàkka wala qiraatul qur'aani du caageenu jàng al qur'aan lil junubi ñeel aji ame janaaba laa déedéet illaa ka aayatin ndare lu mel ne ki laaya wa aayatayni ak yaari laaya li ka taxawasin ngir lu mel ne léemu bi xëyri may ni ci lu fen mu ne ku amee janaaba li fekk muy sangu du sañ a dugg jàkka sañu te sax dugg ci bunt bee sar rek jàll ci ba ca des ba tey ku amee janaaba li fekk muy sangu du saña a tari alquran ci aw làmmiñam ba ñàkkee njàpp moom dañ koy aaye woon rek laal ga gaamil bi ba àlluwa ji waaye léegi su amee ba dañ koy aaye tari sax ci làmmiñam lu may nag mu tari benn laaya mbaa ñaar ngir jubloo léemu wala atte mu dul atte mu jàng laaya ja ngir leeral ne laaya ji mu jàng ci la sukkandikoo atte bi mu atte mën a attere na kullu aalimin jépp aji xam wa aabidin ak jépp aji jaamu yàlla li haa gisin ñal aji lot xan mas si maa in walis laal am ndox baari din mu di aji sedd ay yatiya mu dikkal azawjata soxna sa illa baadama aadda ndare gannaaw bam xaroo ndare gannaaw bam waajalee aalatan jumtukaay yusxinu toj dana tàngale bihaa ca moom ma andox laakin waaye ida taraahu ndeem gaar na ko al ixtilaamu gént fama alayhi deddi ko war baadahoo ci gannaaw ba malaamun yeddeel wala yaraange ne mboolem boroom xam-xam yeeg jaamukat yàlla yi maas nañ ci ne ku mënta laal ndox mu sedd doo sañ a sa soxna lu may daa fekk nga waajal jumtukaay joo xam ne mën naa tàngal ndox nga xam ne boo joteeg mu ba noppi man caa sangu farata su génte rek nag amee janaaba kon kenn du ko ca teg dara ci yaraange dañ koy wax ne ko yow mën laa jëfandikoo ndox mu sedd te fekkutoon nga waajal loo mën a tàngale ndox mi kon su fekkee mën ngaa gaaw a am loo ko tàngale nga gaaw tàngal ndox mi daal di sangu soo ko amul nag te amoo menn pexe say boo tiim rek ba wax wa ngi mën a sangu nga door a sangu ndax gént moom du mën a takk ba xam guddi sàngam danaa géntum du ma gént waaye jote gi soxnaam nga xam ne ci coobareem la koy defee moom danga mënta jëfandikoo ndox mu sedd balaa joteeg soxnaam na fekk mu waajal lu mën a tàngale ndox ma muy sangoo faslu li ab dog la fit tayamu mi ci tiim musaafirun aju tukki saara joj dox na bi xayri maasiyatul ak mooy la ñeel na ko tayamu mun tiim zamaanat tamshiyati ci jamonoy dox ga wa mitluhu am kemam la al maridu aji tawat ju góor wal maridatu ak aji tawat ju jigéen li kulli naafilatin ñel gépp jullik naafila aw faridatin wala gépp jullik farata dafa wax nit tiim moom ngànte koy waral am na ñaar ñoo xam ne moom sañ nañoo tiimal lépp lépp amul teqale kenn ki mooy ku tawat ku am wéradi goo xam ne xam na ci boppam wala ku xam a xam faj nee na ko yow boo jëfandikoo ndox tawat sàngam dal la woon te dana la dal mbaa tawat sàngam ji nga yore woon dana gën a metti mbaa dana gën a yéex a wér kooku muy góor muy jigéen am na ngànt farataam mooy tiim moo xam nag la muy tiimal day farata moo xam naafi la lépp rek mën na koo tiimal ak kuy tukki ba tukki bi tax koo ñàkk ndox moom sax daa wax ni kuy tukki te tukki ba nekkul tukki bu aay waaye xëy na daa topp boroom al axdar yi lañ gën sukkandikoo mooy tukki nekk tukki bu aay ak ñàkk aay ñoo ci yemoo su fekkee ne amul ndox rekk mën naa daldi di tiimal lépp luy farata ak lépp luy naafila dañuy joxe takk-takk boo xam ne mooy kullu ruxsatin taxtassu bi safar fala tufalu min xaasin bi safar laa taxtassu bi safar fa tufalu wa in min xaasin bi safar maanaam gépp jàppandal goo xam ne ci tukki rek lañ koy maye moom kuy tukki tukki mooy yàlla duñ la defal jàpp jàppandal googee waaye nag jàppandal goo xam ne moom ka tukkiwul sax dañ ko koy may kon kay tukki moom doonte tukki ba dee tukki mooy yàlla it du tee ñu may ko ko am na nag ñu ne dañoo bëgg a wax ne ku kuy tukki tukki boo xam tukki mooy yàlla la farata rek ngay saña tiimal mënta ñàkk waaye doo saña tiimal la mbaa leneen li nga xamee ne katawat mën na koy tiimal am ñu ne moom daal dañ koy yemale katawat rek mën naa tiimal lépp lépp moo xam naafila la moo xam jullig néew la moo xam leneen la ni ki jumaa ak leneen wala xaadiru aji teew ja as saxiixu ja aji wér lil fardi dana tiim ñeel farata ida xaafa ndeem ragal na xorooja waqtiha génn gu waxtoom wa lil xusri ngir ngànt la daa lile wala li naflin du caa génnu ñeel naa fi la aw li jumhatin wala ñeel julli jumaa wala janaasatin du ca génnu julleeg tàdd ma julleeg néew lam tataxay yéen goog ràññikuwut faaqilan na nga xellu koo xam ne nag moom nekkul ci tukki wéradi wut wéradi gu koy aaye laal ndox la ci am daal mooy ñàkk ndox rek moo ko tee mën a jëfandikoo ndox kooku nag moom la mënta ñàkk bu jullik farata rek moom lay sañ a tiimal du sañ a jekki-jekki tiimal naafila niki ku daan julli yoor yoor tey nag mu ngi fi dëkk waaye amul ndox te ñàkk ndox rek moo ko tee mën a jëfandikoo ndox ma kon du mën a tiim julli yor yor ku baaxoo woon dawalal tisbaar ñeenti rakka tey nag ndox amut ba day tiim day tiim rek julli farata ja waaye du mën a tiim dawal door a tiim julli farata ja nga xam ne kon ki nga xam ne wér na te mu nga fa dëkk nga xam ne ñàkk ndox rek moo ko tax di tiim farata mënta ñàkk rek lay saña a tiimal nga xam ne julleeg néew sax bu fekkee ne ku ameem jàpp nekk na fa wala am na ku fa nekk koo xam ne farataam muy tiim ndax daa wére di kon moom mi nga xam ne wér na te dëkk fa nga xam ne ñàkk ndox rek moo ko tax di tiim du bokk ca jullee ga day bàyyi ko ameem jàpp mbaa ka nga xam daa tawat ba farataam nekk tiim kooku mooy sañ jullee néew ba lu may nag néew ba dafa ràññi ko ci moom moomule mooy néew bi moom rekk moo fi nekk ci ku ko war jullee ñu yóbbu ko mbaa mu daal di soppi ko kon nag moom moom moomu nga xam ne wér na te mu nga fa mu dëkk ñàkk ndox rek moo ko tax di tiim day daal di tiim rek julle néew ba ñu yóbbu ko jébbal boroomam balaa soppi ko. julli jumaa itam dañ ci wute ba xam sañes na koo tiimal wala déet wax ji gën wóoru mooy bu fekkee ne dafa ñàkk ndox kon dana ko sañ a tiimal day tiim rek julli julli jumaa ga waaye nag bu fekkee am na ndox mu ragal ne bu fi nekkee di jàpp. mbaa bu fi nekkee di sangu farata julli garaw ko ko it bu ko jàpp waree na jàpp bu ko sangu farata waree na sangu bu ko julli jumaa ja rawee nag mu julli tisbaar su fekkee ne it moom am na ndox wiir na itam bu dee jàpp mën naa jàpp bu dee sangu farata mën naa sangu farata waaye nag waxtu wa ci boppam moo xat xataay boo xam ne bu fa nekkee di jàpp mbaa bu fay jekki di sangu farata rek waxtu waraw ko ba du ci am sax lu matub rakka kon day sàmmoon waxtu wa daal di tiim yooyu jamono farataam mooy tiim ñu seetlu foofu ne fu ñu ko diggalee tiim rek na ko daal di def sàmmoon teg waxtu wa bu mu ne man jàpp laa daan def moom laay def mbaa man kat duma tiim damay sangu farata ba noppi door a julli te fekk waxtu waxat moom daal na seet rek lañ ko digal mu di ko def waxtu waxatee moo xam waxtu muxtaar ma moo xam daroori waa am na itam ndox mën na ko jëfandikoo waaye bu ko dee jëfandikoo far waxtu wa raw ko na sàmmoonteeg waxtu wa daldi tiim rek gaaw julli ca waxtu wa faslun di ab dog la fii faraidihi ci ay farataam moom tiim xaddu faraidi tayammumi li mu faratay tiim duri xameef na ko tamaaniyan mooy juróom-ñett hindal faqih fa aju dégg ci fiq al axdari te moo di abdurahman al axdari fa niyatun mooy yéene summa du topp pàkk tahura bopp laab na wa darbatun akub dóor waaye ab teg rek lañ ci jublu teg loxo maanaam teg ñaari loxo ula bu jëkk bi naf ànd kuk fëgg umira guk digleef na ko ka daaka naka noonu mashul wacci masa kanam ga wal yadayni ak yaari loxo ya minal asaabi ay tàmbalee ca baaraam ya ilal kuuxayni ba ca ñaari tikku jara ya wal fawru ak gaaw wa duxoolu ak tàbbiga fil awqaati ca waxtu ya wa misluhu am kemam la al ittisaalu jokku ga bi salaati ci julli ga tiim moom boo koy def day gaaw te gàtt waaye ay farataam daa bari boo koy def da ngay jekki-jekki ne tegg sa yaari loxo ca la ngay tiime muy suuf muy leneen yéene joox faratay tiim ba mbaa mbaa nga ne yéene daganloo julli mbaa lu tax ngay tiim daldi njëkk raay sa kanam ba mu daj del tegaat say loxo ca la ngay tiime daldi raay sa loxo ndeyjoor jàll raay sa loxo càmmooñ loolu rek mooy nit ñi tiime ay farataam nag moo bari mu ne juróom ñett lañu bi ci jëkk mooy yéene yéene ji mooy ni ñu ko waxee léegi boo ne tegg sa yaari loxo ci la ngay tiime moo xam suuf la moo xam leneen la nga yéene dagan loo julli mbaa leneen loolee nga xam ne moo la tax di tiim boo yéenee joox faratay tiim bi nag moo gën a gàtt mën na ne rek yéene na ma joox faratay tiim bi su ko defee bokk na ci farataam la ngay tiime doon loo xam ne yoon moo la may ndigalul tiim ca la ñuy tiime nag suuf moom moo gën ci lépp lu ñuy tiime waaye nag lépp luy xeetu suuf ni ki xeeti xeer yi nga xam ne loxol doomi aadama soppiwu rek mënees na caa tiim ni ki doju carrière doju dënnu doju kew doju woo xam ne nag loxol doomi aadama soppi na ko moom ni ki ciment kenn du ca mën a tiimati ay karo it noonu kenn du ca mën a tiim kon yéene ji ak tiime ci loo xam ne yoon moo ko jox ndigalul tiim ca muy yaar teelu bi mooy teg ba muy teg yaari loxoom ci la muy tiime te mu doon bu jëkk ba ndax dañuy teg loxo yi yaar yoon teg bu jëkk ba nag nga xam ne ci lay masaa kanam gi mooy farata tegum ñaareel bi moom nga xam ne ci lay masaa loxo yi sunna la boo nee teg say loxo ci suuf nag lu mel ne ay bant wala ay xaaxaam taq ci yoo xam ne boo ko raayaalee ci sa kanam mu gaañ la da ngay fëgg say loxo ndànk loola rot nga doora a raay sa kanam ak say loxo de sax sib nañu nga bañ a taq suuf ba tax nga faxa say loxo bu pënd ba deñ nga door di raay sa kanam mbaa say loxo farata ñeenteel mooy masaa kanam raay kanam ba mu daj muy ñeent juróomeel mooy massa loxo yi li tàmbalee cati baaraam yi ba fañ a takk montar ba fañ a takk jara li tax ñu wax loolu mooy boo dee tiim sax da ngay jàll ba ëmb conc yu tuuti waaye la cay farata ci massa loxo yi moom mooy la tàmbalee cati baaraam ba àgg ca fañu takk montar ba fañu takk jara la tàmbalee nag fañu takk montar ba nga ëmb conc la tuuti moom nga massa ko ci tiim sunna la daañu ko wàññi ci sunna ya kon juróom nga waxagun juróom-benneel mooy li ñuy wax alfawru gaaw te jublu ci sësale boo xasee tàmbalee tiim bul ko bàyyi di waxtaan mbaa ngay def leneen danga war a sësale rek tiim bi daal di àgg nga jàll ca la ngay bëgg a def waaye bu tegoon ay loxoom ci la muy tiime masaa kanamam tàmbali waxtaan nag mbaa muy faj seneen soxla ba mu yàgg lam defoon lépp day yàqu mu war a tàmbaliwaat tiim ba kon juróom benn nga ko juróom-ñaareel mooy la muy tiimal fekk waxtoom jot fekkee ne waxtu loola jotuwut du ko mën a tiimal ki bu xaaroon ba takkusaan des lu néew a néew naka mu tiim baagal far takkusaan jot du tax tiim boobu baax mu juróom-ñaar juróom-ñetteel nag mooy tiim bi sës ci la taxoon muy tiim bu dee julli la bu tiimee ba àggal daldi julli fa saasa moom daal lu ko tax di tiim rek na ca tiim ba sës juróom-ñett yooyu mooy juróom-ñetti faratay tiim amma saayidu ndaal pàkk ba fon wa moom ak turaabu mooy suuf wat toobu ak moolu ban wal xajaru ak doj laa tartaabu bu leen sikki sàkka wattal ju galaas wal xaddu xaddu ak banab rembi rembi jaa dikk na fi naqli ca toxal ga wanax wuxaa ak lu nuroog ñoom kasabaxati niki ceeñ baa nga ne niki suufus xorom waram leen ak beeñ wala muy jus waaye dëgganut teye mu mun tiime bil xushi bi ci ay bant wal gisi ak laso matt boo xam ne mbirum lu ñu togg laso bu ñu togg dañ ci jublu laso buñu lakk rek lañ jublu di xaw li nuxu bi ci waxi tànneef ya awil xasiiri wala tasarant mooy ak romb jaan aw xasiisin wala am ñax wala nga ne boob saabitin bu dee aji sax wanax yi ak lu mu roog moom min kuli nabatin ci gépp gàncax naabitin kuy aji sax dalay wax yi nga xam ne sañes na caa tiim mu njëkk a tudd suuf suuf nag moom moo gën ci lépp lu ñuy tiimee boo ko tibboon sax def ci sa palaat teg fii nga xam ne booy tiim rek di ca tiim moo gën tiim ci leneen teewul nag moolu ban nga xam ne ban rek lañu mool noona ban ba kenn lëkku ko wala doj woo xam ne na ko yàlla binde kenn soppiwu ko ki doju dënnu mbaa doju carrière yëpp mën na cee tiim galaas ak banu rem-rem bi mënees na caa tiim am nañu ne boo ci tiim da teg sa yaari loxo bu baax ba mu tooy nga xaw koo fendal tuuti ba mu xaw a fendi nga door a raay am ñu ne da ngay teg ndànk rek nga xam ne say loxo du tooy bu baax nga raay fa saasa tamit loolu nag moo gën a jàppandi teg ndànk rek loxo yi bañ a tooy bu baax nga daal di raay fa saasa moo gën a jàppandi teg bu baax ba noppi di ko séddal am loo cay xaar ba tey lu mel ni suuf su amee xorom wala suufu su beeñ yépp rek mënees na cee tiim bëcc mi xorom mu wax sax walay xor loo ci xam ne fekk nga ko fa ko yàlla dëkkal ca suuf sa nga xam ne waaxu sàkk la amul kenn ku koy aaye kenn moomu ko moo suufa yemoo kon man nga caa tiim waaye nag mooy xorom mbaa ay xor mbaa xeer yi nga xam ne tabaxe xeeru ñuul yi yooyu bu ñu ko xasee indi ba di ko jaay nga xam soppi ko na alal ñu di ko aaye moom si ci mën a tiimati waaye loo ci fekk rek fa ko yàlla sàkke mu nekk foofa nga xam ne waaxu sàkk la kenn moomu ko mën nga caa tiim mook suufayam ba mu waxee ne yi nga xam ne mënees na caa tiim mu teg ci yi nga xam ne kenn mënu caa tiim lépp lu xeetoog bant lépp loo xam ne suufa koy saxal rek moo xam am ñax la xeeti bant yeeg yépp rek kenn mënu caa tiim laso itam daañu koy lakk daañu koy bañ a lakk su fekkee laso ba lakkuñu ko na ko yàlla bind rek la mel mënees na caa tiim ndegam da nga koo fekk fa mu nekk ca suuf sa yàlla dëkkal ko fa nga xam ne waaxu sàkk la nekku al ju ñuy xëccoo laso boobu nag buñ ko xasee lakk ko tuddee togg rek waaye lakk lañ ci jublu buñ ko xasee lakk moom laso boobu lakk ko ngir def ko ciment mbaa leneen kon loxol doomi aadama soppi na ko kenn mënatu caa tiim lu mel ni romb jaan wala sajaada wala basan yooyu yëpp kenn mënu cee tiim nga dellu takkaat foofu ne lépp loo xam ne rek suufa koy saxal muy am ñax muy garab mbaalu bàyyi ko ci garab loolee kenn mënu caa tiim wa in maridta ndem tawat nga inda xaitil xajari fa làkkob doj ba dañoo jublu fa miirub doj ba watto bi ak moolu ban xataa xaaqa ba gàllankoor gis ma ko sa yaram at dalaru lorja wala mu tajut amoo man koo xam ne yëti dana la andil bitturaa ci suuf falaka ko ñeel na la fii ca miir boobee ruxsatu tawwaa bi yolomaluk yàlla mi jéggal ku tuub daa wax ne boo tawatee mën laa wàcc tiim ci suuf te gisoo ku la jox suuf kon miir bi denda yow su fekkee dañ koo tabaxee moolu ban rekk boo xam ne kenn daaxu ko ciment ban ba kenn lakku ko wala miir ba kat dañoo dajale ay xeer rek xeeri carrière wala xeeti xeeri kew yooyu def ko miir ba yooyu yëpp mën nga caa tiim dañuy wax ni sax loolu ku tawat ak ku tawatut ñoo ci yemoo ndegam rekk mbir bi moom doji carrière mbaa doji dund mbaa mooli bane kese rek lañ ko tabaxe ku ne mën na caa tiim ndax suuf daa gën ci lu ñuy tiimi rek waaye yëpp mënees na cee tiim faslun li ab dog la fi sunani ca sunna ya sunanuhu ay sunaam talaatatu ñett lañu in taadut ndeem da nga leen lim awwaluha aj jëkk seen tajdiidu darbatil yadi mooy yeesal dóorub loxo ba dafa jublu yeesal tegub loxo ba wal masu ak masaaga baynal kooxi diggante tikku jara ba wal marfiqi ak conc la tumma taalisatu sunna ni topp aj ñetteeli sunna ya tartiibun moo di ak toftale yaawam mu ko dana matale dafa ñëw ci sunnay tiim ñoom bariwuñ ñett rek lañu ba ci jëkk mooy nga dellu tegaat say loxo ca la ngay tiime tegub ñaareel ndax masaa ci sa yaari loxo ndax teg ba nga njëkkoon a teg muy farata moom kanam nga nga ca doon masaa nga tegaat teg bu yees nag say loxo ca la ngay tiime masaa ci say loxo tegu ñaareel boobu sunu la muy benn ba tey li talee ci dikku jara bu ëmb conco yi tuuti nga masaa ko bu dee ci tiim sunu la bu doon jàpp farat lay doon waaye bu dee fii ci tiim moom sunna lay doon ñetteelu sunna yi nag mooy nga toftale tiim bi njëkk a masa kanam mujje loxo yi soo doon tiim njëkk masaa loxo yi mujje masaa kanam danga bàyyi sunna alfadailu lii moo di ngëneel ya tumal fadailu topp ngëneel ya toxaddu def na leen lim arbaxatan ñuy ñeent awwaluha aj jëkk seen tasmiyatun moo di wax bismillah fal tasbaha na nga dégg waqaddim te nga jiital al yumna ndeyjoor ba al ci càmmooñ ba kama taqaddama naka mu jiitoo woon fii xëyrihi ci ludul tiim fadilatan mbir muy ngëneel wa hakaza niki ni taqdimu zahiri diraahi jiital bit xasab ba aydan ba tey ala batinihi ca biiram ba duuna nisaahin ci ludul xëccoo baa boo ko taaraa duuna nisaaxi ci lu xëccoo maanaam ci lu amul werante rek waqat di man jiitalal muqaddamal aadaa'i njëlbeenu cër ya xalal mu axari ca mujj ga bi la tisnaañ ci lu settee dafa jàll si ci ngëneeli tiim mu ne ay ngëneelam ñeent la ba ci jëkk mooy booy tàmbalee tiim nga wax bismillaahi wax bismillaahi nam doone woon ngëneel ci ba ngay tàmbalee jàpp ak ba ngay tàmbalee sangu farata ba tey noonu lay doone ngëneel ci booy tàmbalee tiim ba tey booy masaa loxo yi nga njëkkee loxob ndeyjoor mujj loxob càmmooñ ba tey ngëneel la muy ñaar ba tey loxo bu ne soo ko dee masaa nga njëkk masaa bitib loxo ba door masaa biir loxo ba ba tey ngëneel la muy ñett ñeenteel nag mooy booy masaa cër bu ci ne nga tàmbalee ca fa mu tàmbalee moom cër ba jëm fa mu yem mel ne bu dee kanam gi boo ko dee masaa nga tàmbalee ci jëba muy wàcc bu dee loxo yi nag moom boo leen dee masaa loxo bu ci nekk nga tàmbalee cati baaraam ya di masaa muy wuti conca la yent yooyu mooy yenti li tiim am man nawaaqidu ndaal way firi ya jamihan boole seen fakama taqaddama mi ngi mel naka mu jiitoo woon mina wudooy ci njàpp mutlaxan ak nu man di demee illaa li naylil maay ndara ñeel amum ndox min qabli duxooli ci njëkk tàbbi ci julli ga laa ba adahoo du caageenu ci gannaawam kama nassa ni ki yaxale bi ci moom an nabilu aji xellu ja mu ne nag li yàq ti moom say boo jàpp ne moo yadaa yàq rek jàpp lépp loo xam ne day yàq njàpp ba tey day yàq tiim mu am nag loo xam ne day yàq tiim te du yàq njàpp loolu mooy mu tiim ba àggal laata muy kàbbar mu am ndox moo xam ne mën na koo jëfandikoo moo xam njàpp la moo xam sangu farata la ba noppi am ca waxtu wa lu matub ràkka kooku day moom tiim ba mu tiimoon yàqu na faw daa war jëfandikoo ndox ma de sax bu xasee tiim ba tàmbalee julli moom gannaaw bu ko ne ndox a ngi nii itam du tax mu dagg julli ga day wéy rek ci julli ga waaye nag tiim ba àggal fekk na ñàkk ndox rek moo ko taxoon di tiim naka tiim bi àgg laata muy kàbbar ñu ne ko ndox maa ngi nii mbaa mu dégg robinet xel li kon tiim boobu yàqu na daa war a daal di bàyyi tiim bi dem jëfandikoo ndox ma waaye boobu itam nag bu fekkoon ni waxtu wa daa xat nga xam ne jàpp fa mbaa sangu fa farata am ca baraka du ca xaj kon tiim boobee rek ca lay jàpp daal di gaaw julli sàmmonteeg waxtu wa wa mën a tere na alxibru fóorija allësi ja nga xam ne waa wattu na alfiqa fiq faradayni yaari farata xadd jumiha yoo xam ne booleef na leen fii tayamumin ci benn tiim laakin waaye nawaafilun ay naafila kathirat ñu di aji bari jaayisatun aji dagan lañ bi ci benn tiim in nuwiyat ndéem yéeneef na leen fanta bi na yeewoo mu ne nag boroom xam-xam yi maase nañ ci ne kenn mënta tim benn tiim rek julli ca yaari farata donte sax yaari farata dañoo bokkaale waxtu mel ne tisbaar takkusaan am na nuñ bokkaale waxtu timis am na nuñ bokkaale waxtu koo xam ne farataam mooy tiim mu dem ba takkusaan jot te julli gutoon tisbaar itam day tiim julli tisbaar delluwaat tiimaat julli takkusaan waaye mënta tiim benn tiim rek julli ci yaari farata farata bu njëkk ba rek mooy baax farata ñaareel ba moom du baax faaw day tiimaat baamu ko bu dee ay naafile nag moom mën na cee boole naafile yu bare bari ci benn tiim bi rek mel ne muy jamonoy koor muy naafila te fekk tiim lay def ndax dafa am ngànt kon mën naa tiim benn tiim rek def ci mboolem naafilay koor yooyu ba tey bu amee ngànt ba sañ a naafi la mën naa tiim benn tiim rek dal ci dawalal tisbaar ñaar rakk del ci tegaat ñaar ci benn tiim bi su ko defee nag mu tiim jox farata ja bàggal farata ja faaw day am tiimu boppam bu doon yoor yoor itam mu bëgg a julli ñeent rakka mbaalu ko ci yoor yoor bi it te fekk farataam nekk tiim kon day tiim rek daal di boole naafile yooy yëpp ndegam yéene na ko ca tiim ba rek mën na leen boole ñoom ñëpp ci benn tiim bi du jar muy tiima ka tiimaat inna lësi naka ka nga xam ne xadd tayam mooma tiim na lil fardi ñel farata jaasa dagan na loxoo ñeel ko baxandu ci gannaaw ba an nawaafilu ay naafila kama loxoo ni ki mu ko ñeele tilaawatun jàng alquran maxat tawaafi ànd ak wër kaaba wa masu mushafin ak laal ab kaamil bila xilaafin ci lu benn wuute bi sharti niyatin ci sartu bi yéene maxa tisaalin ànd ak jokku maxa doxooli waxtu wa bit tawaali ci ak toftaloo mu ne bu fekkee da ngaa tiimal farata mën ngaa jàll ci tiim boobee teg ci ay naafila ca farata ja mel ne nga tiimal tisbaar yéene ca tiim ba nag ba noppee jàll naafila ñeent rakk ci gannaaw tisbaar kon boo noppee ca tisbaar ja mën ngaa dal di gaaw sësale ca ñeent rakk yi ci tiim ba nga tiimoon julli ca tisbaar du jar tiimaat mu ne it boo tiimoolee farata mën ngaa jàll teg ca laal ab kaamil wala tari alquran ci saw làmmiñ ndax tari alquran moom mën naa a ànd jàpp mu ne it boo tiimoolee farata mën ngaa jàll teg ca laal ab kaamil wala tari alquran ci saw làmmiñ ndax tari alquran moom mën naa bañ a ànd akum njàpp waaye dañ caa sopp am jàpp moo tax te yow ndega mën laa jàpp tiim mooy sa farata kon mën nga buy tiimal farata nga yéene ci boo noppee ci farata ji jàll tari alquran mbaa laal ab kaamil mbaa sax wër kaaba dafa mel ndaam ñu wax ne nag day fekk wër kaaba ga nekk wërug la waaye bu dee wërug farata moom dañuy jàpp ne tiimal farata du mën yóbbaale wërub kaaba goo xam ne farata la mel nekkoon kon boo tiimalee jullik farata man ngaa jàll teg ca wërub kaaba goo xam ne naafila la lu mu ci mën doon rek moom loolee nga yéene ca tiimu farata ba muy jullik naafila muy laal kaamil muy jàngal xuraan muy wër kaaba lu sës ca farata ja ba noppee dal ko ciy sësale fekk bu dee lu am waxtu na fekk waxtoom jot niki buñ doon boole timis ak gee nga xam ne gee waxtu wañ koy julli boobu jotagut kon tiim bu ngay tiim di ca julli gee doo mën a jàll julli ca safa wetar ndax boo gaawee julli gee ngir boole gi itam faaw nga bàyyi safa wetar moom ba shafaq fàddu maanaam muxtaarum gee tàmbali nga door leen a mën a julli wa in tayammamta ndem tiim nga li naflin ñeel naafila fal tujis na nga daganal bi ca tiim ba jami xamaa mboolem la nga xam ne dakar na tuddoon nanu ko fi rajas ci ca rajas wa illal faridata ndara julik farata fa innaha naka moom mu ne a tereef na irdaafuha ak tofalam li xëyriha ñeel ludul moom fii maa ci la nga xam ne shuriha yoona leef na ko dane boo tiimalee naafila itam bu la neexee nga jàll tegaat ca geneen la wala nga jàll teg ca tareel quran mbaa nga tiimal la jàll teg ca laal kaamil ki yoor yoor jot sa farata nekk tiim naka nga tiim julli yoor yoor daal jàll laal kaamil jàll sax jàng ci kaamil ba mbaa bu fekkee da ngay tari naka nga tiim julli yoor yoor jàll rek tari sa làmmiñ yooyu yëpp mënees na ko mën ngaa tiimal sax ak naafila bàyyi ko def geneen naafila gu bokk te googa door a def gi taxoon ngay tiim mu génn ci nag farata boo xasee tiimal naafila moom ba julli naafila ga doo mën a jàll rek daal di julli farata ca tiim boobee tiimal farata kay moo mën a yóbbaale naafila waaye tiimal naafila moom mënta yóbbaale julli farata mel na ci misaal bu fekkee sa farata mooy tiim nga tiim nag doon dawalal tisbaar doo mën a jàll ci tiim boobee nga tiim di dawal dal cee julli faratay tisbaar man nga nag boo tiimee julli tisbaar jàll nag tiim boobee nga tiimaloon tisbaar moom nga jàll daal naafila ñeent rakka ci gannaaw tisbaar kon nga takk foofu ne tiimal faratakat moo mën a yóbbaale naafila ak yeneen ni ki laal kaamila yooyu waaye nag tiimal naafila mënta yóbbaale tiimu farata nga seetlu foofu ne ndegam farata moom nga tiimal faaw rek farata joojee moom ngay mën a julli ca tiim boobee doo mën def jeneen farata ji bokk ci jooja door def farata ji nga xam ne moo la taxoon di tiim mel ne bu ci subaar jotoon sa farata nekk tiim ngay tiim yéenee julli ci subaar bu nga tiimee ba noppi laata ngay kàbbar fàttaliku ne julli woon suba xam kon suba daa war a jiitu nga teg tisbaar da ngay wàcc boobu tiim daal tiimaat tiim bu yees julli ca suba door tiimaat nag julli tisbaar wa man tayam mama ku tiim li fardil xatamati ñeel faratay marax marax jooju gee lañ ci jublu julli gee jaasa kon dagan la xooñeel ko al witraani shafa wetar ba adaxaa ci gannaawam ifhama na nga dégg bi sharti añ yakkoona ci sartu bu nekkee daal yi muttasilan di aji jokku bi xayri ta xiirin ci lu yeexee kama xalaa na mu wéye woon xablu ca bu jëkk boo tiimalee julli gee tiim ba nga tiima julli gee ga mën ngaa jàll julli ca safaak wetar du aajow ngay tiimaat ngir safaak wetar waaye nag dañuy sart ba nga noppee ci gee ga balaa yàgg rek daal ciy fësale safaak wetar wa bu xasee yàgg ba mu yéex ba ëpp rek moom faaw da tiimaat waaye doo mën a doyloo tiim nga tiimoon ca geega wa in tayammam te ndéem tiim nga wa anta te yow junubun aji ame janaaba nga fa aw jaboo kon waral nañu ni yeta ni yéene xaa ci janaaba ja xale ka ci yow wa in tarak taxaa ndéem bàyyi nga yéene ja la dat tayammum fa tiim ba fal too idd kon na nga baamu asalaata julli ga duuna waxamin ci njuumte daa wax ne boo dee tiim nag te fekk na nga ame cangaayul farata nga xam ne ngant rek moo tax ngay tiim waaye danga waroon a sangu moo xam ne nga ame janaaba moo xam day jigéen ju deretam jeex mu war a sangu farata kon bu dee tiim day bàyyiwaale xel janaaba ja wala cangaayul farata loolee nga xam ne jeexu deret jaa ko waral waaye bu tiimee rek tiimu kese mel ni ku amewul cangaayul farata tiim boobu du baax faaw rek na yéenewaale te bàyyiwaale xel janaaba jooje wala cangaayul farata la nga xam ne jeexu deret ja moo ko waral faslu di ab dog la fil xayd ci mbërëk kuy wax mbërëk muy reegal wala baaxub jigéen wa yi akub diiram wa maag la nga xam ne yata àllaqu dana aju bihi ci moom li ñuy wax mbërëk wala baax wala régal lu yàlla bind jigéen bu tolloo ci di ko gis mu di ko gis ba ba muy weesu waxtoom ko war a gis bi dara jigéen ci sawukaayam rek noonu nga xam ne wéradi waralu ko am doom waralu ko ndax bu ko am doom waralee day tudd dereti wasin su ko wéradi waralee ñu ne dereti jàngoro la waaye li ko yàlla bind daal deret jigéen ci moom di génn ci moom ci waxtoom ca tolloo ba mu koy weesu tere jooju daa bari àtte ci lislaam muy ci wàlluk jaamu yàlla muy ci wàlluk lu mel ne iddawow yooyu moo tax ñu koy jàngale ci téere yi day wax ci dog bii nag moom lu ci aju ci wàlluk jaamu yàlla wa xoyadun niswaani woy mbërë gi jigéen ña fi taqsimi ci séddale ga talaasul ñett lañu ina xottan dellu nga xalal maaloo ca lañu xam daa tubtidaa in boroomuk tàmbali maanaam koo xam tey la ko mas a gis baadaha kook nekk na ci gannaawam moo taadatun aji baaxoo mooy koo xam ne def na ko defati ko wa xaamilun ak aji ëmb tarjoo joj dana yaakaar bi ci ëmb ba al njariñ dane jigéen ñi gis baax boo ko seetloo ci àtteb jaamu yàlla rek moom mën nañ koo def ñetti xaaj jigéen ji nga xam ne bi yoon la njëkk a gis deret jooju ak koo xam ne gis na ko gisati ko ak koo xam ne daa toll ci ëmb nag ba noppi gis ko li ci ëpp sax ku ëmb moom du gis reegal waaye nag mën naa am mu ëmb ba noppi gis ko ñett ñooñu daal li ñu wax kenn ku ne lu ci àtteem wa aktharul xaydi gën jaa yàggi mbërëk li daatil ibtidaa ñeel boroomu tàmbali xayun mooy fukk ak juróom minal ayaami ci ay fan xindal muqtadaa fa kañuy roy koo xam ne bii yoon la njëkk a gis baax mën naa jekki-jekki ne sotee daal di jeex fa saasa mën naa am itam ab diir bu mat fan mbaa ñaari fan mbaa ñett di wéy waaye daal lu mu yàgg-yàgg moom du ëpp fukki fan juróom su amee fukki fan ak juróom te jeexul rek na xam ne jàngoro la mu daal di sangu di jullee ko def yépp mel ne ku gisul baax amal lëtiin daal jigéen ja nga xam ne intaadat baaxoona bi ci mbërëg min xabli saa ci njëkk lii fatilka mooy loole ay li ci namm aadatuha baaxam ba udan na nga jàpp zaaka loolee fa in tamaada ndem sax na biha ak moom addamu deret ja dañu bañ na bu dee ci ñi gëstu naxwu nga ne fa in damu ndem deret ja tamaada sax na te it wax léegi ne fa in tamaada ndem sax na di nangu nga jël tamaada jee mujj door cee teg addamu ji ko jiitu daa am lu ñuy tolloole diggante in ak addamu beneen tamaada waaye loolu nag ñi gëstu nax wu lay gën a yitteel faltasit na yokk salaasat ñett minal ayaami ci ay fan laa taxid bul jeng maalam tujaawis li feeg jéggiwut tilka loolee xam sa tax a juróom yow mën ci ay fan fala zayda kon déet benn ndolleen yoo tabaru defi ko xalam xonaa nga xam ne moom gis na baax dellu ko gisaat moo gis na ko gisati ko te tóoruwul ci ëmb ko kooku day seet fan ñamu daa am deretam jeex ba xam tey jii bu ko amee deretam dana jeexam déet su amee fan yooyu mu daal jeex nam mu daan jeexe loola kon leer na nàññi su amee nag fan yooya di taxul deretam jeex nag kon na ci yokk ñetti fan wóorloo ko ba am fan ña jàllee nag di taxul deret ji jeex na jàpp ne kon jàngoro la kooku nag ñaar la ndax mën naa doon jigéen joo xam ne takk na ne mboolem yoon yi mu gis baax yépp ñeenti fan lay doon kon kooku ñeenti fan rek lay jàpp ci bii yoon su ko amee te deretam jeex baax na su ko amee deretam jeexul nag mu teg ñetti fan muy juróom-ñaar su juróom-ñaari fan yi matee nag moom te teew dara jay génn mu jàpp ne jàngoro la daldi sangu di jullee ko woor ak a joteeg borom këram bu ko soobee bu dee na koo xam daa wuute am na yoon yoo xam ne ba mu gisee deret daa doonoon ñetti fan am boo xam daa doonoon ñeent am bu mu doonoon juróom kon day jàpp lim bu gën a bari bu tolloo te gis baax day jàpp juróom yi gën a bari soo amee juróom tam jeex loolu baax na boo amee juróom te deret ji jeexul mu yokk ñetti fan mu juróom ñett gannaaw ñetti fan yooyu nag moom ba deret ji jeexutit na jàpp ne jàngoro la daldi sangu tey jullee ko a aka def yépp waaye dañuy jàpp nag ne lu yàgg yàgg deret jooju mënta ëpp fukki fan a juróom koo xam ne moom gis na baax gisati ko gisati ko waaye yoon yépp daa doonoon fukki fan a juróom su amee fukk a juróom ci taxul deret ji jeexit du ci yokk benn fan tey jekki-jekki sangu rek tàmbali jullee ko woor koo xam ne itam dafa aada woo am fukki fan ñeent door a jeexal bi yoon nag mu am ko di jeexut da ci yokk benn fan rek mu yem ci ko juróom koo xam ne itam dafa baaxoo am fukki fan ñett te itam jeex tey nag mu am ko di jeexut day yokk rek ñaar waaye du mën a yokk ñett ñaar rek lay yokk kon jàppal ne kooku nga xam ne gis na ko gisati ko lu yàgg-yàgg gën jaa bari deretam mënta weesu moom fukki fan ak juróom te neenan la bu fekkee dafa am lum aadawoo loo xam ne àggul ci fukki juróom bu ko amee te jeexut te ci yokk rek ñetti fan lu may nga xam ne bu ci yokkee ñett mu bëgg a weesu fukki juróom kon da ci yokk lam ca mën a yokk rek tam yem ci fukki juróom niñ ko leerale léegi ak taruhoo muy gën jaa yàggam li xaamili ñel aji da abin ci gannaaw ñett min ashurin ci ay weer fahiya mooy fukk ak juróom yow man ci ay fan uxsub na nga lim wa naxwuha ak lu mel ni fukk ak juróom wa ba'da win gannaaw juróom benn min ashurin ci ay weer xadduhoo limam ba duri xameef na ko kaafan muy ñaar fukk minal ayaami ci ay fan li ci ëpp ku ëmb du gis deret jooju waaye nag mën naam yàlla dogal mu di ko gis dañuy seet nag ba xam da koo gis njëkk muy am ñetti weer wala gannaaw bu mu amee ñetti weer jëm juróom-benn wala gannaaw bu mu amee juróom-benn ba ba muy am doom foofu lay wuutee su amee ñetti weer ba noppi door koo gis la fa dale ba juróom-benn weer moom saa yu fi gisee rek gën gaa yàggi deret ji du weesu fukki fan juróom ba ci ñaar fukk su demee ba ñaar fukk tee jeexul rek na xam ne jàngoro la mu daal di sangu tey jullee ko woor fa mu amee juróom benn weer itam ba ba muy am doom bu fi gisee deret jooju lu yàgg-yàgg du weesu ñaar fukki fan jëm weeru mat sëkk muy fanweeri fan su fekkee ne am na weeru mat sëkk te deret ji jeexut na xam ne kon jàngoro la daal sangu tey jullee kay woor mu des nag bim tàmbali ëmb te amagut ñetti weer daal di koy gis foofu daal foofu nee nañu am na yaari wax waaye ba ci gën a wóor mooy tey jàpp rek aadaam maanaam maanaam su masaa gis baax nam daan tollu rek ci ba mu ëmbagutoon na jàpp noonu rek ba tey su amee loola te jeexut mu yokk ci ñetti fan ndegam fu ñu war yokkee ñetti fan la daa am na ñu wax ne dañ koy yemaleeg ba mu amee yetti weer digganteem ak juróom-benn weer ñu waxoon ne bu fa gisee deret fukki fan juróom lay doon jëm ñaar fukk waaye wax ji wóor daal mooy day jàpp rekk nam aada woo ji sigaret ba mu ëmbagutoon murha digal ko bital fiixin ci ak tàppe li koy tukkam mi la ngir mu matal aadataha baaxam ba isam xitaaxu ndem ak dog xasala am na bu fekkee ne moom ni ko deret ji dikkale dafa maasiwut day def li ñuy wax jénnal tey mu gis deret bu ëllëgee du ko gis ëllëg mu gis ko ëllëgaat du ko jis kon day wàññi fan yi nga xam ne ci la koy gis te baña wàññiwaale fan yi nga xam du ko gis su ko defee nag mu wàññi fan yooyu bu tolloog lañ ko waxoon ne ko sa deret noonu la war a toll rek bu tolloo noonu mu jàpp nekkoon kon deretam war naa jeex bu dee fu war a yokkee ñetti fan mu yokk ko fa bu dee foo xam warta yokk ba tey du yokk dara fan yi nga xam ne nag moom du ci gis deret dañ koy jàppee ku laab dañ koy jàppee koo xam ne tolluwul ci baax nga xam daa war a sangu ci bis boobu di jullee ko ak ka muy sëyal bu ko soobee ñu seetlu foofu nag ne buñ ko nee yokkal ñetti fan bu yokkee ñetti fan day jàpp ne loola mooy aadaam ni ki bu fekkee da daan am ñetti fan jeexal tey jeexut ñu ne ko yokk ci ñett mu yokk ñett mu juróom benn léegi nag na jàpp ne aadaam juróom benn fan la nekkatum ñett walam tajus daganut salaatu xaaidin jullik aji mbërëk wala tawaafuha du caageen ak wër kaabaam wa massu mushafin ak laalub kaamil xalaa bopp kawe na wala laxaa déddi ko ñeel aydan ba tey siyaamun koor mutlaxan gum man di doon ay li ci namm fardan kooruk farata aw tatawaan wala kooruk coobare ñu koy wax kooru ngàtt nga fa xaqiqan na nga dëggal wala laxaa de di ko ñeel ay don ba tey du xoolul masjidi tàbbi jàkka maanaam dugg jàkka wala bi baytihaa ak dont ci néegam la wala dont ci këram la xalal moo di ci lañuy sukkandikoo lakin waaye xadaa u saw mi fayu koor ga bax da toxori ci gannaaw laab ga xale xaa war na ko duuna salaatiha ci ludul julleem ga fadri na nga xam nee na jigéen bu gisee baax boobu du saña song rek julli araam na ci moom muy song di julli wala muy wër kaaba moo tax jigéen ju toll ci aj wala muy xumra bu gisee deret du mën a wër kaaba faaw rek mu bàyyi ba deret ji jeex ba mu sangu mu door a mën a wër kaaba ba tey jigéen ju gis deret jooju du saña woor genn koor du koorug farata ni du koorug ngàtt nga muy koor gu mu coobarewu du saña laal alquran moo xam àlluwaja moo xam kaamil lu may nag nga xam ne da koy jàng mbaa mu koy jàngale jigéen ji toll ci gis baax te fekk muy jàng alquran ngir mokkal mbaa mu di ko jàngale moom mën nay laal la mu yittewoo ca njàng ma mbaa njàngale ma bu deret ja jeex nag laata muy sangu moom du sañ a laalati alxuraan ja lu may dafa sangu ba noppi ba tey jigéen bu jisee baax du sañ dugg jàkka dañoo jël toog fa waaye romb rek jàll aw ci buntu bee jàll ci bële du ko sañ doonte jàkka ja dafa nekk ci biir néegam wala ci biir këram itam du ca sañ a dugg su ko defee nag julli yi moom du ca fay genn waaye koor ga nekkum kooru farata la woon te ko war a fay niki jigéen bu tolloo ci ramadan ba noppi gis baax ba mu tee koo woor gannaaw bu ramadan jeexee ba mu laab day fay koor ga wa jaw wasoo daganal nañu qiraatul quraani jàng al quraan li xaa idin ñeel aji mbërëg maxaafatan nisyaani ngir ragal fàtte jigéen nag bu tolloo ci gis deret jooju fekk am lu mokkaloon ci alquran daañu ko may mu di ko tari ndax bala mu ko fëtt fëtt mooy fàtte maanaam mokkal gu deñ waaye nag suñu te laal téere bu mbaa àlluwa ja lu may niñ ko waxe léegi fekk muy jàng mbaa muy jàngale walla muy gis tëgganut li saw jihaa ñeel jëkkëram ja an yotta amu laal farjan ab sawukaay la xaañeel ko xamdan ci ak tey aw xata an wala ci njuumte sawa an ñu way yemoo wala lëxu déddi ko ñeel daal maa la nga xam ne bay na suratin nekk na jumbax laxaa ñeel jigéen ja waruku batin ak bati woom xataa tutimma ba ba muy matal xos laxaa cangaayam la jigéen nag bu tolloo ci gis deret jooju ka muy séel daa war a ormaal la tàmbalee ci ba ba ci bati woom ba bañ koo laal dëgg la sax la araam dëgg-dëgg mooy jotee moom ci sawukaay waaye dañuy bañ bu laalee diggante boobu loolu yóbbu ko ci lu araam la mooy yóbbu ko joteeg moom ci sawukaay kon ku soxnaam tollu ci gis dara jooju ba ba muy jeex ba ba muy sangu na ormaal la tàmbalee ci jumbax ba ba ci bati boobu nga xam ne buy tëdd moom itam soxna si jël lu tal ko li tàmbalee jumbax ba ci bati woom ko defee nag fa des ci yaram wa mën nañ caa jote te bañ a laalante ci diggante boobu fas faslu li ab dog la fi nifaasi ci dereti wasin wamaag la nga xam ne yata àllaqu dana aju bi sii ci moom dereti wasin mooy deret joo xam ne am doom moo ko waral moom it daa am àtte ne àtte mbërëg mais muy régal moo tax mu di ko tudd nifaasun wasin xadd ba daa moom feeñ na kala xayd mi ngi mel ni ki mbërëg filman añ ca tere ga ak saruhoo gën jaa yàggam waxut di da limeef na ko sittiina muy fukk yow man ci ay fan tu umaru def na ko digal bil xusli ci cangaay la ma salaati ànd ak julli ga in baana dem feeñ na in xitaaxun ak dog xablaxaa ci njëkk juróom benn fukki fan yi kama zukki na niki miineef ko suma isaa xaa wadaxaa topp ndéem delsi na ci moom addamu deret ja wakkaanata nekk baynahuma seen diggante yajibu fukk ak juróom aw aksaru mbaalu ko ëpp baana loolu feeñ na fattaani kon aji ñaareel ji xumaa ci ñoom ñaar yakkoon dana nekk xaydan di mbërëk mu tànn mu di muñ sos indal faqih fa aji dégg ji fiq aydan ba tey wa in yëkku ndeem dafa nekk bayna xumaa seen diggante duuna yajibin lu yées fukk juróom yow mën ci ay fan fa dammuhoo kon ak tàppeem maanaam ak booleem lil awali jëm ci aji jëkk ja yajibu dana war tuma ida nazarta topp ndeem seet nga fil xiyaas ci xiyaas wajattaxoo nga fekk ko mu tam mi man muy aji mottali wasin wa dafa wax ne dereti wasin moog dereti mbërëg ñoo bokk lu ñuy aaye niki julleeg woor wër kaabaag laawa xuraan yépp rek ñoo ko bokkule mën naa gaaw lool nag mu am doom deraja na soteet daldi jeex fa saasa waaye mën naa yàgg moom nag ba ci juróom benn fukki fan mat yaari weer sëkk door a jeex bu amee nag juróom benn fukki fan ci taxul mu jeex na jàpp ne jàngoro la daal di sangu di jullee ko woor bu ko soobee itam jotee ka muy saa yu deret di jeexee rek nag na sangu jàpp ne laab na su deret ji delsiwaatee te nga xam ne mbirum jënnul lay def na waxoon ca mbërëg muy jënnul tey mu dikk tey mu dikk kon bis yi nga xam ne daraja du ci ñëw tey jàppe boppam ku sangu di jullee koy woor fan yi nga xam ne lay gis daraja nag moom mu jàpp ne daa amee doyati wasin du ca sañ a julli mbaa woor mbaa dara ci yooyu bu daraja tegaloo di génn di génn ba yàgg mu jekki-jekki mel ne lu jeex naka mu sangu nag ba tegaat cay fan deret ji dellu kon dañuy seet fa nga xam ne fa la jeexe woon ak fa la dellusee ba xam diggante boobu ñaata fan la su fekkee diggante bi matut fukki fan juróom ñu jàpp ne dereti wasin joojee moo jeexutoon lii ca la bokk bu fekkee seen diggante nag mooy fa yu jëkk ji jeexe woon ak fii mu dellusee mat na fukki fan juróom mbaa mu ëpp ko dañuy jàpp ne kon dereti wasin wa foofu lay amoon lii mu gis léegi dereti baax la maanaam reegal la mbërëg la jotewut ak dereti wasin ja dara dara noonu rek mooy takk-takk bi saa yu toppee dereti wasinam daal bañ ne jeex na ñu tegaat say fan mu dellu siwaat bu fekkee diggante ba mat na fukki fan a juróom te loolu mooy gën jaay néewi laab nga xam ne kon fa jeexe woon ak fa mu delsee mat na fukki fan juróom mbaa mopp ko ñu jàpp ne kon deret ji mujj saat moom reegal la maanaam baax la bokk te dereti wasin ja su fekkee diggante bi nag matul fukki fan juróom ñu jàpp ne dereti ja moo jeexutoon jii feeñ da koy mottali faslu li ab dog la fi maarifatil awqaati ci xam waxtu julli ya al waxtu wa yan qasimu dana séddalikoo lil muxtaar jëm ci muxtaar walit daroor yi ak jëm ci daroor yi la dal axbaar yi fa fóoreya day bëgg a wax nag waxtu yu julli juróom ndax su borom bi mu farataalee julli itam julli koo sàkkal waxtu bu ci yoonu nag julli gu nekk waxtoom dañ koy def ñaari xaaj am na waxtu wu njëkk wi tudd muxtaar nga xam ne su fekkee amul benn ngànt war na caa julli bu ci julli wut na yenu bàkkaar bu rëy rëy xaaj ñaareel ba moo tudd ak daroori yu bàyyi ko ci ab darooratu bi fi di lor nga xam ne ko amee ngànt mu tax nag mu yeexe ba ca xaaj ñaareel ba mu julli ca moom du amee bàkkaar mu wax na kenn ku ne muxtaaru zuhrin muxtaarum tisbaar min zawali shamsi mu ngi tàmbalee rëccug jant li aaxiril xaamati ba ci mujjub taxawaay ba duuna labsin ci lu dul lënt wal xasru takkusaan muxtaarun muxtaar la xaañeel ko min xaama nga tàmbalee ca xaama ga ilaa waxtis firaaril waxtu gelug suuf sa lal yu waxidu caagéen soxuk jant ba inqilan na nga xellu amma daroori yu daal daroori yu li haazayni ña li la yaar ma an boole seen fali xoroobil yuuxi jëm na ci soxub jant ba inda man nga xam ne waa wattu naa dafa jëkkee tisbaar mu ne tisbaar day muxtaaram mi ngi tàmbalee ci bu jant bi rëccee jant bi rëccee yaa ngi koy xàmmee ci gannaaw bu jant bi fenkee rek jëm ju ne day am takk ndeer boo xam ne day féete soowu te takk ndeer boobu lu jant bi gën di yëkkatiku mu gën di wàññiku bu jant bi yëkkatikoo yëkkatikoo ba àgg nag ci fa nga xamee ne fa la mën a yem ci yëkkatiku takk ndeer bi itam foofu lay mën a yem ci wàññi kam doon mu wàññi ko bu jant ba bàyyi ko foofee nag ñu jàpp ne rëcc na boo xoolee takk ndeer ba li muy jeex tàkk bariwut la ci ëpp day des la muy des mën naa gudd mën naa gàtt dañuy bàyyi nag ba mu def as keppaar ker ga jëlër bi ko su fekkee ne jeexoon na tàkk itam moom ker ga ñu bàyyi ba geneen ker sosuwaat ba def as keppaar ñu door a jàpp ne foofa la muxtaarum tisbaar tàmbalee foofu nga ne nag fa la muxtaar ma tàmbalee dana dema dem ba jenn jëmm ju ne boo nattee takk ndeeram mu gudde ne moom te konte waale woo ca na takkandeer ba tollu woon ba tisbaar di jot mënees naa takk nag ne nit ku ne bu nattee ñeenti xasabam mooy tolloog ak taxawaayam ba tey bu nattee juróom-ñaari ndëggoom mooy tolloo ko taxawaayam kon mënees na ne na ker ga toll woon ba ñuy wax naa tisbaar jot na soo waccee loola xool nag la ca yokku mu mat sa ñeenti xasab mbaa mu mat sa juróom-ñaari ndëggu dalal di xam ne kon muxtaarum tisbaar foofee la yem foofee muxtaarum tisbaar yam nag fala muxtaarum takkusaan moom di tàmbalee moom dana wéy di wéy ba nga xamee ne takkusaan yi suuf jot na ker yi jàppaloo boo xoolee naaj mu xaw a xong nga xam ne nanaaj wa weexe woon ci bëccëg bi dañ na su boobaa foofu la muxtaarum takkusaan di yam kon seetlu nga ne fa muxtaarum tisbaar yam fa la muxtaarum takkusaan tàmbalee kenn ku ne nag boo bëggee xam daroor yoom da ngay wax rek fa ma yemale woon muxtaaruma la fa dalee ba jant bi so mooy daroor yoom nga xam ne kon bu dee tisbaar da ngay wax ne ba takk ndeer guddee ne boroom takk ndeer ba te konte woo ca na ker ga toll woon ba tisbaar di jot foofu nga waxoon ne fa la muxtaarum tisbaar yam la dalee foofa nag ba jant bi bëgg a soo nga xam ne genn jullee ci xaj loolu lépp mi ngi bokk ci daroor yiwu su ko defee takkusaan santam na waxoon ne bu takkusaan yu suuf jotee ba ker yi jàppaloo naaj yu yéexatut foofu la muxtaaram takkusaan yem